waaw xam nga euh, c'est une ville politique euh, dëkk la boo xam politique dafa yàgg euh, Thiès waaye Yag bëgg politique également responsable ou Thiès en tout cas yéen aussi di jouer un rôle important ci côté opposition Lolo moo tax Thiès moom faaw nit ñi bàyyi bàyyi ko xel ñun ñi Thiès n'ak far ci ak président Makissal, Lolo loolu lu ñu bàyyi xel candidature yooyu nga lim yëpp vraiment jaaxaluñu boo jëlee mouvement Dolil Macky rek liñ ci déclaré ci ay candidature yu ci bari ñoo leen ëpp militant suñu mouvement rek la wax candidature yooyu nga jël individuellement en dehors de Idriss Seck mi nga xam ni relativement moom la ñuy wax mo am majorité à Thiès je relativise hein mais ñeneen ñëpp laa la wax amul ci kenn koo ci jël te mouvement Dolli Makku ëpp la ay militant ça moom j'en suis certain non xam nga aussi boo bàyyee ba élection dëdmal nga jóg parce que tu as été au fonctionnaire wala tu as occupé des postes importants dans le gouvernement nga defee ni loolu doy na pour que sénégalais yi wóolu la fal la c'est pas évident bo jëlé kenn ko xamni mi ngone Alsan, ci Macky Sall lu bax lu né Thierno Alsan Sall wax ci Macky Sall les archives sont là les images sont là parlantes koku mënoo xey xey parce que tout simplement déggootu leen wala cër bi la joxoon nangu na nga bëgg don son principal opposant di ko xas di mu def lu bax Sénégal am lo xamni ni nangu parce que nit ki nak bu yoré responsabilité denk la né ne nañ ki la abali beut fa mu bëgg ngay xol kon nak bo nekke un ministre nek dans le gouvernement mais ni ko président beugé non nga ko war a et non ni ko beugé yow parce que passer le pouvoir am la jël jox la kon bu ngeen demee nak ba am euh, un différent sur ce plan waro don ko xam da ngay génn di ŋàññ di woné ni li naka jekk mosu fay def lu baax et cetera boobu discours sénégalais yi mënuñ ko gëm li la wax rek gis nga candidature yoy ko ci jël individuellement nga comparer sen militant ak militant mouvement doole yu ñun rek bu ñu demee élection ñu bàtt leen. stratégie yi nga xamni war nañ ko dérouler pour jappeler le président Macky Sall. xam nga am na fu wax ci ben interview ma c'est bien ñu gérer militants yi ñu am mais militants yi rek doyul dañu bëgg Macky Sall ñu falco avec un taux vraiment très respectable té loolu li tax ñu mën ko am moy ñu dem ci citoyens yi wax ak ñom jàppale leen ñu gis sen bop ci politique bi nga xam Macky Sall tek nako